nekkee sa njiit muy njiitu réew wala muy sa njiit ci leneen waxtaan ak yow ni la mbiram nii la bëgg mu tëddee surtout ci ponk bu am importance bu mel ni communication euh, defe naa loo ci teggi loo ci teggi rek loo ci deful rek mën nañ ko méngale nii euh, yifu maa tey la wala yow dafa am leneen li ngay def dafa am lu ko wundu xam président Macky Sall weer yee passé weer bee passé dafa jël

des critiques positives, critiques négatives, de communication de la grande majorité présidentielle génnee ay orientation yu les orientations pour nous, théoriser pour nous pratiquer mu santaane ñu defar séminaire séminaire pour nous gën ko élargir ba nga xam ni képp ku ñu ni contribuer à la communication ba nga xam ne tolof tolof yenn yi ci am mu dañ ñu daje fa ci king faat président li muy taawam di xat-xat yépp mu ñëw teewee mbir mi wax ci ay wax yu am solo Gini ni nga xam ne noonu war doxalee non la war bëggee ci communication sénégal ñëpp dégg nañ ko mu jambat le fait wax ju bari ji parce que wax ju bari ji yàgg nañu indil

ñu ngi ci octobre juróom-ñaari weer juróomi at lañ ko dénkaat réew mi juróom-ñaari weer la président doxalu góom ñuy wax loo xam ni mu ngi ñëw 2024 mandat du mandat succession wak ku koy wuutu mais loolu dafa bokkul sax ci respecté Sénégalais yi alors que Sénégal lu tax ñu fidd li war seen kóllëre seen seen kóolute président Macky Sall dañuy bëgg mu yeggale liggéey yu am solo yi mu commencé Sénégalais yi ñu ngi xalaat

kuy mobiliser wu kuy wax rek lan nga war a def mooy bilan wu président Macky Sall ak li des ci bilan bi ñu jëmale ko kanam mais képp nag koo xam ni ci dynamique boobu mais ci beneen dynamique nga nekk mooy sa mooy sa dynamique bu bopp looloo taxoon président jël matukaay yooyu yëpp dajale njabootam dajale ñi mu xalaat ni ay communicant lañ wax ci waxaat ci donc mooy kilifa gi donc su waxee loolu nga en tant que directeur national responsable ci APR ñeu dem dugg ci ay débat yo imposer euh, indi wax ba majorité bi président nga président aujourd'hui mi ngi yu am solo mi ngi premier sommet ci aduna lu day ni président africain donc ñi ngi nan yi ngay indi ay waxu dugg ci ay waxu kalaw-kalaw day jox opportunité ré li nga xamni moy mooy ñi ñuy ñu indi débat yo xam day polluer mbir ni donc lool na nga ko mën comme ni ma ko waxee ci njëlbeen rek téggi waxu kilifa la mais peut-être aussi da nga ko parce que da nga am agenda boy dawal bo xamni ni bokkul ak lii intérêt général li intérêt euh, liggéeyu président Macky Sall jëm kanam wala su fekkee tamit amoo doole boobu pour suba nga samp sa ndënd fekk ab ponkal moo nekk si ginnaaw yónni la ngay wax wax yoo xam ni mais dafa teguwul ci yoon parce que dafa jaaduwul parce que comme ni ma ko répété président Macky Sall dafa xalaat jël ay matukaayam def ci les moyens humains matériel pour que ñu ñu ñu réorienté waat suñu communication xool ci li nga xam ne ci juróom-ñaari at yi moo ñu indi ay tolof tolof ñu teg ko de côté mu tànn ay nitam ñi mu ñi mu wóolu parti bi wóolu leen majorité bi wóolu leen benn wóolu leen pour ñu doxal yow nga jógee fële rek fàqalang gi wax wax yoo xam ni après dans les heures suba gannaaw suba coow li ni tulleeg ma la ñuy wax am na ci droit amu ci droit alors que waxuma sax c'est pas un débat d'actualité mais c'est-à-dire dadul dafa warul sax nekk débat lii débat aujourd'hui mooy li des ci li président Macky Sall di liggéey mu liggéeyal ko ñun ñëpp ñu mobiliser wu jàpp ci loolu defal ko limu bëgg déggal ko mais wala ko ko mënul mais génn ci nga génn foofu dem taxaw ci biti mais nekk ci biir ñun la jaaral fii ngay jalgati di wax lu neex di ñuy indil ay wax yoo xam ne ay débat yoo xam ne c'est c'est inutile alors que aujourd'hui dem je me répète sénégalais yi li ñu soxla wax leen terre bi ah wax leen leneen ak leneen ah même moo même su fekkee yow da nga nekk ci sénégalais de l'extérieur mais waxal ci li nga xam ni yu extraordinaire yi président jël léegi ñuy wax nouvelle carte consulaire bi nga am nga xam ni jël nañ matukaay yoo boo xam ni soo nekkee bitim réew am na ay dispositions ñu jël ba nga xam ni ñaanu ma ko yàlla soo yeewoo suba euh, yàlla moom la nga faatu ay cotisation wala ay problème mu rapatriement ko rek yooyu yëpp du ci am donc léegi kuy communiquer ci ak président kuy communiquer ci li président di doxal kooku defe naa liggéeyu président soxal na la

man du président de la république awuma décret décret hmm? man dama bénéficier wu sax décret mais évidemment man nañ xalaat ni parce que président nim ko waxé depuis weer bale ci ay ndaje yu feuss ndaje yu fësul ko xam président Macky Sall xam ne am détermination affaire yi kafu ci reetaanu ci disposition mécanisme bi mu tëral mais ku ko war a jalgati ku koy jalgati ah sanction warul la bête. parce que tamit liggéey la bo xam du fu communication c'est déterminant c'est important mën nga liggéey aduna ak li ci bir sa communication baaxul nit ñi duñ ko gis mën nga nek do liggéey comme dang koy gis ci kujjante yi programme yoro dara mais sa làmmiñ ñaw nga xam noy communiquer consort nit ñi gëm la lool Sénégal dund nañ ko ba donc communication du fu donc suñu organisé organiser affaire communication président moko organiser boppam dama ne la réunion réunion waat réunion séminaire joxe ay directive am yow ngay nu mu tuddati ndongo kese fàqe fa ci àll bi wax loo xam ni fi nga amee opportunité waxtu nga wax loo xam ni nafar toj bilan président Macky Sall wax fi ñu jëm ak yi am leneen ak leneen fii ba 2024 Sénégal fa muy toll ah ngay nekk di wax ay waxu politique politicienne ay ay mandat ak ay succession ak consort donc il faut que nous mais toutes les personnes yi nga xam ne ay responsable lañu nekk di wax ci ay affaire 2024 affaire kuy le président Macky Sall ci biir parti beeg ay mandat ak mais yaa ngi ci leneen loo xam ni président au-delà communication responsable bu fi taxaw di jaay xam-xam wala nga am mais lan nga mën jàppale président Macky Sall au delà liggéey bi mu la sant jàppaleel jeunesse am jàppaleel jeunesse su euh, Sénégal xoolal ñi nga xam ni ñu yegg ci président de la république mën nañ yegg si yow nga saafara seen ay mbébét mais di wax ay waxu picc guddeeg bëccëg wax yoo xam ni suñ ko développé fii ci kan lay dal ci président lay dal ci majorité bi loolu jaaduwul yi fu maa tey la mën nañ ko waxee même si parti mais c'est de l'indiscipline euh, militante du yoon teguwul ci yoon donc loolu lu ñuy ñaawlu la man du ma président du man maay sanctionné mais président li mu waxoon leer na nii laa bëgg ñu doxale imposé wu ko ñu waxtaan si ba ñëpp xam ni mooy tegu yoon bu ko kenn ay charte la bu ko kenn jalgati mais c'est normal et logique ku ko jalgati yoon dal sa kaw yoonu discipline u parti ak leneen dal sa kaw